ahousubillahi min sheytaani rajim bisimillahi rahmani rahim allahuma salli ala sayidina wa muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman wa jaxal kalaami rachidan wa murshida wa fikrati nawitu wa xalbi arshida barke borom Tuba kon jërë ngeen jëf mbokk yi nga xam si yéene bàyyi xel seen chaîne GMT GMT TV ci cadre waajtaayu màggal Tuba ñu war koo amal 4 Euh, comme ni ñu ko xamee rek euh, Muxaddamatul Xidma ak daari bi di Rawdu Rahin ak euh, association des équipements de la Mouridiya ñu gën koo xam ci AM muy kuréel gi nga xam si dafa manque wala bokk boole ay bindkat ñi bind ci yoonu murit ci làkk bu mën a doon fii ci biir réew ak ci bitim réew suñu borom def ñu am liggéey bu am solo bi ñuy amal ci weeru safar gi ñu war ko ñu tàmbali woon ko démb muy cérémonie d'ouverture bi muy jotaay bi nga xam si dañ koy def ay exposition ak ay ñuy def ci yoonu murit ci réalisation euh, daar jii di Moukhaddamatoul Khidma ak Rawdu Rahin ak euh, téere yi nga xam si bind nañ ko ci yoonu murit ñu koy gaaral fii euh, kon waxtu wi ñu nekk tey ñu ubbi jotaay yi nga xam si moom mooy njëkk jëm ci wàllum panel yi ñu njëkkee nag ci téere bu am solo bi nga xam si jëmm ji ñu wax sëñ Modou Mamoun Ndiaye moom moo ko bind sëñ Modou Mamoun Ndiaye nag xam naa danañ ñëw ci xëy na jaar-jaaram ak jëmm ji xam ne ko mooy kan waaye dañuy njëkk ci téere bi nga xam si bind na ko mu tuddee ko vie et mémoire de la fille aînée de Cheikhul Khadim soxna Faat Ja Mbàkke moom ji moom la ñuy fas yéene xamal ci téere bi euh, ki koy présenté nag di euh, soxna Maguette Sylla euh, sëñ Modou moom Mamoun Ndiaye xam naa ba ñëw si soxna Maguette Sylla dañuy leeral moom mooy kan mu nekk ab mbokki taalibe nekk diwaanu France bitim réew waaye wax dëgg yàlla nekk mbokku taalibe nekk bindkat bu ràññeeku ndax sëñ Modou Mamoun mën naa di boon tekk ci ay téeram dana mat fukk wala lu tekk moom nag yàlla def mu nekk biographe ndax day gëstu ci njaboot sëñ Touba ci sëñ Touba ci jëm boppam waaye di bind ci njaboot gi ndax bind na ci sëñ Abdou Lahad bind na ci soxna Mouminatou bind na ci sëñ Abdou Khadir bind na sëñ euh, Moustapha Mbacke bind sëñ Fallou bind na ci ñu ci baree bari ci waa kër sëñ Touba téere bii nag moom mu bind ci si soxna Faat Ja Mbacke ki koy présenté nag nekk soxna Maguette Sylla moom it nekk euh, jàmbaar yàlla def mu bokk ci euh, comité yi baree bari bokk na ci Rawdu Rahin nekk nag agent ministère de la formation professionnelle et de l'apprentissage et de l'insertion waaye nekk gëstukat ci yoonu murit nekk professeur de lettres bokk na ci technique d'expression et de communication kon soxna Maguette xam naa laataa ñuy guddal kàddu gi rek dañ doon xam ak mbokk taali bi nga xam si ñooy bàyyi xel bi ñu xam dëgg dëggi waxtaan wi fu mu toll ak téere bi nga xam si tàmbali nañ ko fas yi ko yéene gaaral waaye e, dikk ak yéen ci kàddu gu njëkk ngeen nuyu mbokk yi nga xam si ñoo topp xel ñoo topp jotaay bi laataa ñu leen di bàyyi ngeen exposé téere bi nga xam si moom la sëñ Modou Mamoune bind ci soxna Fadja nga xam si képp koo xam si yàlla def na muy teewlu rek dana ci man a am aperçu donte xëy na fàggoogu ko laataa ñuy ñëw nag ci wàllum euh, deuxième partie bi muy faram fàcce ci téere bi kon soxna Maguette ñu lay bàyyi nga nuyu mbokk nga xam si ñoom ñuy teewlu GMT TV. awuzu billahi mina sheytaani rajim bismillahi rahmaani rahim laa hawla wala quwwata illa billahi sëñ Bamba. di la ziar di ziaraale mbokk waa ayam yëpp di ci euh, bis bu tedd bii ñu jëm ji itamit suñu kilifa ñun ñëpp sëñ taxa ñépp du ñaan suñu boroom euh, ñoddilu fanam euh, wéral ko ba naal yi mu naalal sëñ bi yëpp mottali ko defe naa jotaay yi ñu am fi mu nekk nii ci GMTV ak yeneen kuréel yu ni day dugg ci naal boobu mu naal Euh, gën a tasaare gën a yaatal mbindum sëñ bi ak euh, gën a xiirtal nit ñi ci ñu gëstu ci lu aju ci sëñ bi te wax nga ko léegi sëñ Modou Mamoun di suñu mbokk bi bu baax am Pastef xam ko ci bëgg sëñ bi ak di ci gëstu nekk ci tànk yooyu itamit di ci bay waaram mu jël kenn bi yoon ci jëmmi njabootu sëñ Touba nga xam daanaka moom rek tënk na yoonu mu rek gépp ñu soxna Fatou nekkoon euh, taawu sëñ bi bu jigéen euh, jëmmaloon euh, lu bëree loo xamante ni sëñ bi mbébatoon na ko itamit ci soxna yi ci yoonam wii nii looloo tax lii mu bind nii mu am njariñ ndax dana am loo xamante ne xëy na daan nañ waxtaan ci Soxna Faat Ja waxtaan ci ñeneen ci njabootu sëñ Tuubaa waaye bind bu fii sax ci Soxna Faat Ja mu doon téere boo xamante ni ci moom képp lay wax euh, bii dañ naan guléet mooy bu njëkk bi kon nag loolu lu am solo la parce que tubaab day faral di wax naan euh, ay wax day dem waaye loo bind xas ba bind moom daf fi des waaw kon nag bu ëllëgee ku bëgg a gëstoote ci Soxna Faat Ja lii dana doon foo mën a teg sa tànk pour mën ci dox kon ñu ciy santaat bu baax nag di sant sëñ Maamun ndax euh, ak sagal la daal ndax waaw ñu waroon mën a def lii bëri na lool waaye bu taamoo suñu jëm muy xeeb yi wax dëgg ñu ko ci sant bu baax di leen ci sant yéen itam. Euh, macha allah yéen it xam naa ni jàmbaar gi ñuy wax ci sëñ Mamour moo nekk ci yéen ndax euh, loolu loolay firnde tey mu seen xel dem ci yéen bañ ne ne jox leen liggéey bi nga mën koo présenté téere bi wax nag dafa nekk téere bu am solo xëy na ñu ci bëree bari li nga ko wax dañuy dégg waxtaan soxna Faty Dia Mbacke waaye mosuñu am benn production littéraire et scientifique boo xam si nit mën nañ cee sukkandiku moo xam kii gëstu wala muy exposition lu mën a kon dañ lay bàyyi rek yi nga tënkal xëy na ñi nga xam si ñooy teewlu téere bi eh, lan moo ci nekk ak ban jàngat lañ ci mën a gis. fi mu ko gëstoo buñ ko seetloo euh, ci ñu mel ne sëñ Abou Bass ñu doon ñoo xamante ni am nañu lu ñu xam as ci dundu euh, Soxna Fatou Euh, ñooñu ñoom la jël dem tënk loo xamante ni itamit soxna Faat Ja moo ko nettalil boppam euh, li mu jëkkee ci ñëw ci euh, gane àdduna soxna Faat Ja dellu siwaat ci càll la way juramu góor aku jigéen dellu siwaat ci yar bi ko sëñ Tuubaa yaral boppam ni ko tarbiyaale boppam ba ni sëñ bi di fi jógee di dem géej bi mu ñibbisee sëñ bi àndaat ak soxna Faat Ja dëkk ak moom takkook moom nekk ak moom ba ni soxna Fatou demee kër ak ni sëñ bi ñëwee ci résidence yiñ koy indi yëpp ni soxna Fatou Dia continuer di takkoo itamit ak sëñ bi ak taxaw bu sëñ bi wóolu ko ba taxawuloo ko ci euh, njabootam gu jigéen ji ak euh, lenn ci waa Balsàq yi nga xamante ni moo leen féeti woon mag ak njabootu euh, cheikh yu mag yi fi nekkoon itamit nga xam dañ leen ko dañ ko ko dénkoon ñuy ay soxna mu waroon leen yar sëñ bi lott ci bokk astafurlaa ci saa ndax sëñ bi suñu borom mayal na ko lu bëre mais soxna Faat Jeen nekkoon ci jumtukaayu sëñ bi yu taxoon ba moom munoon na matale loolu ci euh, soxna yi ak doomi cheikh yi nga xamante ne moom lañ doon dénk sëñ bi mu dellu siwaat itamit ci njàngale soxna Faat Ja ak loo xamante ne ay may yu ko sunu borom mayoon la ndax Euh, li ñuy fàtte mooy ni sunu borom di tagg ci alxuraan góoru yàlla yi man moom mi nii ba fi aaya bayam suñu borom fu mu ci tuddee góor daf cay tudd jigéen soxna Faat Ja nag du sëñ bi yar ko yar woo xamante ne dafa bokkoon ci ñi bokkoon ci làmp yi daan leeral ci yoon wi itamit donc ñooñu yar woowu soxna Faat Ja sottiwaat ko ci ñeneen amaat ay xar baax ñu ko mënee wax ak ay karaama yoo suñu sunu borom may na ko mu mën ko def yooyu yëpp sëñ Modou Mamoun dellu si waat na ko ci livre bi tënk ko ba waxaat itamit soxna Faat Dia nu mu nekkee woon digganteem ak njabootam boppam xëy na bu suñ borom mayu ko mu am leer boo xamante ni muy taqandeer bu jóge ci moom may na ko ñu mu bokkal ñu sës moom ñoo xam bàyyi nañ fi sëñ bi féetale ko ñooñu ñooñu soxna Faat Dia digganteem ak ñooñu nu mu ko doon doxalee ñi mu bokkal sëñ bi war ma ba mu leen joxoon ak ñooñu nañ ko ko delloowee ak ñi nga xam ñoo nekkoon cheikh yi nekkoon ci ci ci ci yoon wi fa ñu tegoon soxna Faat Ja ak fa leen soxna Faat Ja kon defe naa ni ci tënk daal sëñ Maamun dellu siwaat na ci li ëpp solo ci dundu soxna Faat Ja itamit ci njëriñ ak soxna Faat Ja li nga xamante ni tey jii moo waral lii yëpp mooy nii sëñ Tuubaa doon naalee yoonam bii soxna Faat Ja bokkoon na ci ñi gëstu woon dëkk bii ñu nekkoon ndax xëlwata boobu sëñ bi defoon ñeent fukki guddi di wër Touba soxna Faat Ja moo nekkoon ci néewaan soxna yi nga xamante ni teewoon nañ ko te sëñ bi mayoon na ko ci boppam ba fu mu mënti nekk mënoon na ko faa fekk loolu dafa am lu muy ñun ñu ak lu muy sëre leneen li ci nekkaat mooy fii bërëb bii ñu nekk muy jumaay Touba ji soxna Faat Ja bokkoon na ci euh, architecte yi nga xamante ni ci ñi daan taxaw liggéey bi daan ko sàmm waxuma nag alal ga nga xamante ni lu mu amoon lépp daf ko jaay jaayante ko jébbal ko muy àddiya donc lépp lu soxna Faat Ja def daal xaw na ko tënk ci téere xëy na donte dul lu yomb mais tënk na ko muy tënk bu am solo boo xamante ni vraiment ku bëgg euh, foo mën a sukkandiku pour mën a xool taxawaayu soxna ci yoonu murit taxawaayu soxna ci diine l'islam en général war nga cee mën a sukkandiku pour mën ko jàngat. soxna màgget moom macha allah am na solo loolu. waaye man téere bi dama cee am ab jàngat boo xam si xam naa du ñàkk dañ ko partagé ndax euh, sëñ Modou Mamoun comme ni ma wax sànq samay euh, njëlbeelu kàddu moom xëy na biographe la démarche bi muy jël mooy tey nit boo ko dee présenter da nga wax ci euh, fi mu bokk juddoom ci nuñ ko mën a waxee ba mu feeñee jamono jaar-jaaram ba nu mu fi ni mu làqoo ak témoignage yi ñu def si moom te boo xoolee sommaire bi day mel ni yooyu yëpp da ciy da ciy ñëw ak ay yenn anecdote yoo xam si daf koy daf koy daf koy raconté waaye li nga wax ci soxna Fadia xëy na dañuy leer rek ni moom nga xam si moom mooy taawu Cheikhul Khadim bu jigéen loolu dafa mat a euh, leeral waaye boo gisee dundinam ci ni doxee ci wàllum xëy na fi mu féete day mel ni taxawaay boobu la sëñ Modou Moustapha Mbacke amoon ci ci ci ci ci góor ñi ndax da xool ci biir téere bi dañ ciy gis ni sëñ bi maanaam murit saarix la ko daan wax maanaam soxna jaar soxna soxna Fadio noonu la mel ne ci sëñ Touba bëggoon ko waaye sëñ Touba jaraloon ko lu nekk bu ci bo bu ko daan xool sax di ko di ko di jàpp ni sëñ bi way juróom la <laughs> ab taalibe taalibeem la daan la daan la daan la daan nekk fu sëñ bi nekk daanaka amatul kàddu njabootam ku ci nekk boo xoolee sax turandoo yu bari danañ ci danañ ci ñëw waaye li nga wax sànq mooy da daan jëm ba jël ay takkaayam di ko di ko wecc di def ci jumaay ji ñi fa daan liggéey moom muy ne ci waañ wa di fa togg di wut café di leen di leen di leen kon loolu lépp ay jàngat la yoo xam si mën nañ koo mën mën nañ koo def waaye leen li ci gën a am solo moom mooy li nga wax ci taxawaayu jigéen ci ci yoonu rek waaye ci lislaam sax ndax da gis yenn réalisation yi muy def waaye valeur yi nga xam si da koy inculquer boo xoolee jamono ji ni société bi mel soxna yi mel nii di leen gësu dafay dafay nekk farata lu am solo rawet ne comme ni nga ko waxee peut-être dañ daan dégg ay waxtaan nga xam si da ngeen kii rek mais yi ay production la yoo xam si tey nit ki léegi da ngay mën a dem ubbi bi mën koo mën a jàng ñu ñoo bëgg ñu bëgg a ñëw nag ci yenn dimension yi nga xam si soxna si am na ko ndax boo xoolee dafa nekkoon koo xam si mën naa ni amoon na fu mu tolloon sëñ bi daal te ku xam sëñ bi rek xam ko ci moom li sëñ Moussa na wax naan maanaam moom képp koo xam si daa ñëw ci moom lam la lam baax rek la la bokk waaw lay na ci waaye nag day gis ni sëñ soxna si moom mm. nekkoon na ku teel a xam loolu ba wàllum sufu yankee googu ñu wax ak tasawuf da ko doon dund lu baree bari boo xoolee lu ci baree bari daanul ñu ngi ko nettalee daanul nelaw daanul def daal léppam da koo tëngoo ci jaamu yàlla ak liggéey sëñ Tuubaa ñu bëgg xam taxawaay boobu ñu ngi koy wax sànq ci saaru Alxuraan ñoom ni mu ciy taxawee nga xam ni góor baax na waaye tamit jigéen baax eh, ay jaam suñu borom la euh, xam nga loolu boo jàngee tuuti rek càllale waxuma sax euh, diggante Soxna Faat Ja ak euh, sëñ bi mais am na sax wàll boo xamante ni sëñ maa Maamun wax na ko ci tàmbali téere bi bi muy wax ci càllaleem soxna Fat ci diggante askanu Mbàkke ak ture Lappé donc ñëpp ay doomi soxna lañu donc ni mu delloo si waatee càlla la gi mu bokk mhm. mamasta waalo mhm. ñëpp xam nañ mhm. jàngalekat la nekkoon tarbiya suñ borom mayoon ko mu am kàttan daan jàngal tëral téere yi euh, fóore yi ak kàngam yi soxna jaara suñu borom amoon melokaan bu mu ko meloloo kon ñoom euh, soxna Fat Dia ci càllale yi mu ganee àdduna ak euh, soxna Fat Diatouré soxna Faati Diatouré mii waajuram wu jigéen moom it mhm. ci càllale yi ñu bokk ñoom ñëpp kenn ku ci nekk da nga nekk ci euh, foo xamante ni ci njàngum alxuraan ak di ko dund ak di ko dundal ci nga yaroo su yàlla dogalee nag mu nekkaat taawu Sëñ Tuubaa bu jigéen te yàlla dogal na ni soxna Fat Dia euh, sunu borom tawféex bi mu ko defaloon ci sëñ bi mooy avant dogal bi di yegsi ci sëñ bi ci la gane àdduna nga xam ne am na euh, bu ñuy wax ci saa dañu 1878 la gane àdduna donc am na benn euh, tawféex bu ko suñ borom mayoon boo xam sëñ bi moo ko yaral boppam tarbiyaal ko boppam kon sëñ bi ko xam ci li mag ñi nettali ci tarbiyaam ak yaram du la jaaxal sono fat ja di mën di woor di sufiyankew toll ci benn niveau boo xam ndax sëñ bi mooy li ñu doon waxtaan sànq rek mhm. di daan xëcc ku mu mënti doon pour nga dem nekk melo melo joo xam daanaka dammitu malaaka nga daan nekk <laughs> waaw te sëñ bi daanu ci woon settantal muy ne kii góor la wala jigéen la mm-hmm. ndax li gën a siiw mooy que sëñ bi doon laaj ne ko sa doom bu góor nu mu day mu ne ko bu dayoon nii de mën naa war naa mën a dal mu ne ko ba muy jigéen nag mm-hmm. waaw comme sëñ bi boobu xalaat la xalaat ci ñeneen kon njabootu boppam waxatuñ ko mm-hmm. te ñoom ñooñu ñëpp ku mu ci doon yar bi mu la daan yar amoon na moom projet bu mu bëggoon nga war koo mën a matale ji mm-hmm. wax nga ko léegi sono Fatou Dia moo féete woon mag ci ñëpp sax mm-hmm. góor ak jigéen mooy ki Sëñ Tuubaa jëkk gis ci njaboot mm-hmm. donc euh, waaj gi mu waroon waajal sono Fatou Dia dafa doon waaj woo xamante ni bu ëllëgee na mën a uuf njaboot gépp te jamono jooju sëñ Mamour Anta Sali mi ngi mi ngi fi woon moo ko moo ko tudd moo ko tuddoon 1878 sëñ Mor Anta Sali noppal ko 1883 mm-hmm. xam nga li lay firnde laat ne euh, sono faat sëñ bi daf ko doon waajal pour mu mën a uuf njaboot gi mm-hmm. demaan na ba bokk na ci ñi gën a deqaliwaat euh, poroxaan itamit mm-hmm. yeesalaat teen beek yem fa daan def bu daan waaj màggali ji na mu daan def ànd ak njabootu sëñ Tuba ak yëpp donc euh, loolu yëpp sëñ bi doon waajal c'était pour que Soxna Faat Jëm mën a ñëw seconde ji ñii nga xamante ni ñoom la yàlla di dogal ne xëy na li ñuy wax xilaafa donc euh, yanuk sëñ Tuubaa ji ci seen kaw la waroon wàcc ji kon waroon na am ku dëgër koo xamante ni day nekk ci seen wet waroon leen te soxna Faat Ja loolu leen te eh, soxna xam naa danañ ci ñëw muy mm-hmm. digganteem mm-hmm. ak njabootu sëñ Tuubaa gi ndax mm-hmm. moom ñu ñu bokkal bàyyi jàppewu leen <laughs> ay ñoo xam si ay doomu bàyyi la ñu ma ko mën a waxee ci góor ñëpp ay sëriñ la leen jàppee ba boo xoolee dañ ci gis yenn anecdote yu ñu mel sëñ Mamadou di ko ci indi bokk na ci mbubb sëñ Daam Abdourahmane Lo bi ak eh, sëñ Modou Moustapha gan ngam ko defal loolu buñ ci mënee Eh, bu dee mën nga cee dikkaat. waaw xam nga mooy li ma la wax ba tey rek sànq nee naa la yaruk sëñ Tuubaa kenn xamut lu mu doon ndax euh, sëñ bi dana jël përëm tëgg ko ba suñu boroom def ko muy wurus yàlla bu dogalee nag la mu yor mu doon euh, euh, ji bu doonee wurus mu def ko or pur day yomb mm-hmm. Mm-hmm. waaw ndax sëñ bi dalaan tànn fa mu daan jëlee muy benn Euh, taal moom it sonnaat itamit ci yar ba mu daan yar mm-hmm. te yàlla dogal na ni njabootam gépp boo leen xoolee dañoo nosu di benn càllale mm-hmm. du ñu génn famille doomi soxna yi ñoom ñëpp te kenn ku ci nekk ci ñoom am na foo fu seeni maam doxewaat ba dajawaat mm-hmm, yàlla yara mu yaraat leen itamit euh, ci ne kenn ku nekk wekk bi nga war a wekk sa morom sëñ bi dellu siwaat na ko ci mag yërëm ndaw ndaw fonk mag soxna Faat Ja nag Euh, boog moom loolu bokk na ko ak njaboot gépp kenn ku ne dangaa jox sa morom cër waaye cër boobu nga koy xoolee cëruk sëñ Tuubaa nga koy xoolee mm-hmm. te defe naa ni doo danga dul yem sax ci moom dangay dem ba ci ñi ñuy wax ne ci taalibe yu mag lañu mm-hmm. taalibe yu mag yi ñoom daan ñu leen woon xoole ay taalibe lañ leen daan sama baay daan wax waaw kon yooyu wor ma la yoo xamante ni dafa jar di ko jàngataat ci jamono ji mm-hmm. suñu xoolee xew ci jamono ji ci ñàkk wor ma ñàkk joxante cër ñàkk fonk kilifa yooyu yëpp day moo tax ma ne la livre sëñ Modou Mamoun bi dafa am lu bëree bëre loo xam ne war na koo mën a def ci euh, surtout ñun soxna yi defaale ñu mën ko defaale itamit suñuy njaboot. li ngay gis mooy mel ni bu sëñ Abdourahmane sëñ bi. Mm-hmm. ba nga ko fóotee ba pare jël ndox mi. Ah, di ko barkeeloo di ko barkeeloo ak mm-hmm. sëñ Moustapha sëñ Moustapha yaakaar naa ba nga ko ziyaare jee di dem mu tibb ci tànk yi di ko maanaam di ko jëloon njabootu sëñ Touba ak li ñu doon xoolee sëñ Touba waaye li ci gën a am solo moom mooy Eh, bi sëñ bi dund ak moom ak bi sëñ bi nekkatul maanaam constance boobu daa daa daa des si moom nga xam si tey mën naa ni comme murit ni muy mel ci bëgg ci sab sëriñ waaye tamit ci nangul ko loolu lépp nag yàlla defoon na ci mu nekk ci jëmm ji nga xam si mooy soxna Fatou waaye ñu bëgg ñëw ci relation bi nga xam si am na ko ak ñoom li ñu ko ko delloo ndax boo xool turandoo mi dafa mel ni bari leen ko loolu waaw xam nga euh, sëñ Tuubaa da daan wax tul mag ñi ba leen di laaj dana leen mooy nii dañu lu baax safaan it mooy maanaam loo def nit waaw loo mu lépp tey day dellu siwaat ci yaruk sëñ bi ndax euh, sànq li nga wax xam nga loolu suuf la mais xoolal lu del ne sëñ Basiiru tibb pepp yónnee ko ko mu ne leen bu ko kenn jëfandikoo nañ ko fa def mu def ko barkeelu ñëw ñu ne ko pepp moomu euh, jëfandikoo nañ ko mu dugal ko aal xam nga yooyu yëpp day dellu siwaat ci wóor ma moom bi mu leen jox te Sëñ Tuubaa tax leneen li ci dellu si waat mooy ne ñoom itamit xam nañ ni kii mooy seen mag xam nañ ni itamit moom it ëppali ñu wuñ ko ci Sëñ Tuubaa ñu delloowaat ko ko turandoo yi soxna Faat Ja yi soxna Jabaara yi kenn du leen wàññi kenn xamul nu ñu day beneen bi ñu ci mën a jàngataat itamit waxuma sax ci euh, euh, soxna yi dinañ ci dellu si waat léegi ñu góor ñi ku mel ni Cheikh Moustapha da daan diisoog moom ci lu bëree bëri bëri bëri ci sono ak sono Fatia parce que xamoon na ni yar bi sëñ Tuubaa def ci moom ak nite gi mu am ak xam bi mu xam fi jamono toll mu ñëw di waxtaan ak moom bu ñu fàtte ni sëñ tubaa bu daan bu ko Cheikh Moussa Ka am na jamono yu muy bëgg bindaat jazaawu sàkkoor ak yenn euh, xisa yi ajuwaat ci yoon bi da ko daan dem demal laaj ko sono ja ndax moom fekk na démb fekk tey waaw kon ñoom ñii tamit di njabootu Sëñ Tuubaa bu ñu bëggoon tànk ci dara dañuy mm-hmm. dellu si waat Soxna Faat Ja muy wax ak ñoom mm-hmm. leneen li ci toppaat wax nga ko léegi turandoo yi kenn xamul nu mu day waxuma ñoom waaye cheikh yeeg mm-hmm. ñi nga xamante ne sopp Soxna Faat Ja Soxna Faat Ja xam Sëñ Tuubaa bëgg xasida yeeg yooyu mu wut ay kuréel ci biir këram wut ay jàng jàngkat xas alxuraan wut daaray kaamil njabootu Sëñ Tuubaa ju jigéen ci ku ci mas a wàcc bind mokkal def li ngay def lépp suñ tubaa danaan nañ la delloowaat soxna Faat ja mu jàngal la ak ak mhm. waaye ñoom i tamit mhm. ñu waat ko jàppe ko seenub sëriñ ndax ku la yar waaw mooy sa sëriñ <laughs> soxna may Kubra mhm. ñëpp siiw na benn photom bi mu am bi photographe ba ko bëggoon a photo dañu ko damay laaj ji ndigalu soxna Faat ja te soxna Faat ja day bind pour wax ne moo ma jox ndigal mu leer ma ni loolu ndigal gu dog la te duma ko weddi xam nga loolu dafa mooy li ma la wax dunduk soxna Fat ja ak njabootuk sëñ Tuubaa ak cheikh yeeg ñëpp day loo xamante ni lu nit war a man a jàngat la waaw moom moom koy taalibe ci gën a kawe sax ak bëgg sëñ bi ndax dégg sëñ Mamour di leer naan bu bu teree bi daan jóge Tuubaa di jaar kii daan teree bi maa ngi lay jaar yow bi jógee ci tëdd romb nga ko xadim loolu koy mm-hmm. mooy di sax sëñ bi naan doon wax naan murit murit saadix la waaye ñu bëgg a ñëw ci dundam xam naa mu nekk loo xam si révélation la mooy xëy na sax doo daale ko woon bàyyi xel muy mm-hmm. ci moom day mel ni suñ borom def na may ko may ko leer waaye ci wàllum mm-hmm. héritage am am na lu mu ci waxoon waa xam nga suñu boroom dafa dogal mm-hmm. euh, soxna Jature mooy wéy juru soxna Faat Ja suñu borom mayoon ko yeneen leer yoo xamante ni sëñ Mbàkke soxna moom sëñ Abdou Xaadir mu mag moo leen mooy seen wéy muy ñoom soxna bu soja ñoom sëñ Abdou Jaw ak yooyu waa du yoo lii léegi nag sono Fatou Dia naa dafa ne woon sëñ bi di ko laaj ndax moom dana fi am njaboot. Mhm. sëñ bi ne ko moom sunu boroom dogal na ni doo fi am njaboot waaye euh, soxna bu sa jam mooy doon sa noonu. Mhm. muy rakkam bu njabootam ñoom ñoo ko doon mooy waa kër sëñ Mamor Pakala ak waa duyool yi ñu doon tudd léegi. Mhm. Euh, siiwul waaye euh, sunu boroom daf leen defal ñoom même bu dul sax ni rakkam yee amoon njaboot. ñëpp xoolal lim bi ñu jox soxna Faat Ja ci ay turandoo mu war leen yar loolu doyoon ko mu doon njabootu boppam euh, sëñ bi itamit tànn gi mu ko tànnal soxna bu Dia waxoon nga ko sànq soxna Faat Ja bu sëñ bi ma saana wax ak moom wala bu toogee ci kanamu sëñ bi rek amatul xalaat lu sëñ bi wax moom jeexal na ca tàkk waaw <laughs> sëñ bi ba mu ko joxoñee soxna sa Dia mm-hmm. ca la jeexal ca wax ja ba bindu lu sëñ bu Bousso mm-hmm. ne ko sëñ bee ma ko digal ne moom mooy sama doon bind ko mu doon lu dagg mm-hmm. ñu xam ni moom moom doon na ci lépp waaw kon euh, am na jaboot goo xamante ni sunu borom baaxe na ko muy euh, ay saa bàjjan duñ waxee sax bàjjen ñëpp ca la ñu bokk mooy njabootu euh, càmmiñu boppam yeeg njabootu taalibe yeeg yëpp ñi mu doon yar mm-hmm. mais am na njaboot goo xamante ni sëñ bi moo ko tànnaloon muy njabootu boppam mm-hmm. kon euh, dana mel ni xëy na ci gisin du nii ñu mën a nattee ni diw ku njaboot la mm-hmm. waaye wax dëgg yàlla suñ borom dogaloon mu njaboot la waaw ndax uuf na ay rakkam uuf ñiñ ko tuddee uuf cheikh yi uuf itamit ki ñu ko féete waloon ci àddu muy taxawaay bu am solo boo xam si mat naa roy moo xam ci taalibe yi waaye tamit ci suñu borom def ñu nekk ay soxna tu nekk ci njabootu Seexul Xadim ndax xëy na kilifa moom bu dee góor lay gën a yor bi day gën a leer waaye nag bu dee soxna tamit daanaka di gëstu jaar jaari soxna jaar ak soxna Faat Jaaj ñoom ñoom ñii mm. day nekk lu am solo loo xam si ku ci nekk rek dañ ci dañ ci mën a am euh, moom nag nekk na koo xam si nuñ ko waxee xëy na taawu ku tedd ki la waaye dafa mel ni ci euh, ci ci zaar ba mu jéggi sëñ bi mm. euh, 72 heures yooyu ñuy wax day mel ni am na ci lu bëree bëri loo xam am na ci moom ndax fekke na lépp mm. boo xoolee sëñ Modou Mamoun mu ngi koy indi ci dernier entretien bi nga xam si jot na ko am Cheikh mook Cheikh Khadim mm. di ci nettale lu bare bëri ndax mën nañoo dikkaat ci loolu waa euh, sëñ Bamba wax nga dëgg mm-hmm. sëñ Modou Mamoun dellu siwaat na ko ci mm-hmm. euh, liggéey bu leen sëñ bi doon liggéeylu mm-hmm. ne leen ndax bii mooy mujjantal li ma leen di liggéey kon sëñ bi xamoon na ni moom daanaka li ko dese bëreetu Euh, beneen bi ci toppaat itamit li hmm. mu ko wax dana ko dama lay dénk foog naa daf ko toggalu reer lu ko doon toggalu waaw waaw léegi son di xelam ci xelam naan ndax dama war a wut nag wala hmm. dama war a wut lii hmm. nee na xelam ne ko di rek gàtt moo gën a neex mu wut ab xar naa loolu moom daf ci xalaataale rek di sant jaxteeg sa mbokk yi sant may <laughs> léegi ne leen defaral ko euh, xar mi def ci ay ginaar nee bi mu ñëwee sëñ bi sant liggéey bi ne ko am na liggéey buy ñëwi ci moo doon jumaa ji ne ko buy dikkee wax ko tolluwaay yi mu bëgg yëpp soxna Faat ja taxawu ci looloo tax bi jamono ju ñëwee ak melo bi sëñ bi meloo soxna Faat ak moom junj sëñ bi jon yoon ak moom ñàkk xel ci bu mu am bu sëñ bi xasee ba ne ko yoon wi fii la day yomb ci soxna Faat ja bu fi gisatul sëñ bi mu mën a jaay ay takkaayam xam ni Cheikh Moustapha soxla na ko mu jébbal ko ko àddiya sëñ Tuubaa pour mu boole ko ci liy dem ci jumaa ji euh, du jaaxal nit i tamit buñ la nee Soxna Faty Dia bokk na ci ñi daan nekk di toj xeer yi ci biir jumaa ji pour ñoon du la jaaxal bu ñu nee Soxna Faty bokk na ci ñi daan yenu bagaani ndox yi di indi ci ñuy root pour ñëw fii du la jaaxal bu ñu nee Soxna Faty Dia daan na segg kafe daan na toggul ay xéewal pour mu ñëw te lépp ci jotaay boobu ak dénkaane yooyu ko sëñ bi dénkoon ci bu liggéey bii ñëwee nañ ci yéene ñëpp waaye moom bu ko ci kenn ëpp Pastef te Pastef jooju defe naa ne soxna Fatou ja wane na ko bu baax. macha allah wane na ko lool ndox dëgg yàlla mu nekk téere boo xam si xam naa ni. Mm-hmm. bu buñ ci ñëwoon bëgg wax lépp du du xaw a du sorti ndax ni ma ko waxee rek démarche biographie la ko defee nga xam dafa ñëw ci naissance soxna Fatou ja euh, soxna Dia Touré ñëw ci la Baraka Dia Touré comme ni nga ko waxee ci la jógee soxna euh, soxna Astou Mbacké Kajoor formation de soxna Fatou ja sa proximité spirituelle avec le Cheikh portrait souvenir mm. daanaka moom technique am ni muy faral di bindee yooyu yëpp da ci ñëw mm. détail du ci du bàyyi dara mm. ba ni mu ñëwee ci témoignage de Serigne Touba xam def na ko même ñaan yi nga xam si sëñ bi joxoon na ko àq waajur mm-hmm. yooyu yëpp xam naa ni eh, yu yaatoo yaat la ba tax na ku suñu borom def daal nga am téere bi da mm-hmm. gën a mën a xam soxna soxna Fatou Diop téere bi moom fu ñu ko mën a amee téere bi édition Daaru Salaam yi mm-hmm. ñoo ko publier waaye foog naa ni sëñ Mamoun mu ngi koy wéccee ko aussi ci Amazon. Amazon waa am na Sénégal. Euh, waaw normalement librairie yi euh, yiy jaay. Euh, ñoom sëñ Abdou Khadre Ba Madialis ji li ba. xit kii xikma bu sëñ Cheikh ma ñoom ñëpp incha allah ku fa dem daaru ma waa ko fa dem di nga war a mën a amaale kii ouvrage bii nii. Mhm. waaye daal wax dëgg yàlla lu mhm. nit war a mën a jàngat la. Mhm. parce que bëri na loo xamante ni ci jamono ji dana ko réglé ci situation yu bëri mhm. parce que Soxna faat Dia ñu fàttaliwaat ko moo magoon Cheikh Moustapha magoon ñoom sëñ Jam yi ñi nekkoon taaw yi Cheikh sëñ mais suñ borom dogaloon na ko moom xëccoo wutoon dara ak ñoom mhm. moo tax it suñ borom dellu dogaloon na ba lépp dellu siwaat na encore ci moom mhm. kon nag ñuy sàkku ak di ñaan Euh, di ko tàmbali ci suñu bopp ak yeneen mbokki soxna yëpp ñu gën a jàngataat téere yu demee nii di ko sàkkuwaale itamit ci suñu càmmiñ suñu mbokk taalibe yi ndax danañ xam bu baax fu ñuy teg suñuy tànk ci yaruk suñu doom yi loolu moom noonu la war a demee ndax yoonu murit moo moo bindoo noonu ci xam-xam la judd ci ci xam-xam lay lay tege mm-hmm. daare soxna yi bari nañ te yii dafa am solo ndax mm. du ñàkk euh, ñuy def ay activité culturelle scientifique mm. euh, yu ci baree bari xëy na yi daan sukkandiku ci ay waxtaan yooyu léegi mi ngi tàmbalee am à de mm. des productions kon yii yenn la ci yoo xam si dana mën a dimbali soxna yooyu ngir ñu gën a fësal liggéey soxna Fadia waaye tamit ngir mën a rey dundam ndax nit ki boo ko xam boo ko boo ko bëggee faw nga jéem a gëstu ko ci nan la daan dundee nga mën ko cee nga mën ko cee roy na ci yeneen téere ci sëñ mm-hmm. Abdou ci sëñ Abdou Khadir Mbacke mm-hmm. sëñ sëñ Mor Moustapha mm-hmm. bind ci sëñ Fallou bind na ci ci bare bare ci njaboot sëñ sëñ Abdou Lahat bind ci téere bu yaatoo yaat tuddee six cent et quelques pages kon loolu day wane ni wax dëgg yàlla moom mi gëstu te li muy def dafa nekk lu am solo ndax mbind moo bindee noonu am na ñoo xam si tey dañuy xool mboor li ñu wax ci sëñ Touba bu dee fekk na dëppoo ak ñu mu am ñu jubbanti ko comme ni ko Seydina war ba defee ak sëñ Mbaye Guèye Sylla ak waa livre blanc nga xam si yooyu yëpp dafa dafa dafa dafa jara euh, dafa jara def ñii ñu ngi bind ci ñii dañuy tàgg sëñ bi ñii di ko ñii di way ñii di def euh, ay production scientifique ngir leeral taxawaayam sur le plan économie social et cetera kon noonu rek la mën a demee kon bu ñu amee jëm yi mel ni nga xam si ñoom suñu borom dafa def seen xale mooy ñu ñu dëpp ko ci bu xool njaboot ku tedd ki ndax li may li ñuy faral di wax rek maanaam sëñ bi moom daanaka kenn dootu ko kenn mm-hmm. ubbileetu ko mm-hmm. waaye nag ñim yar rek dafa doy te mm-hmm. ñu bu leen fësalee dana gën a tax ñu xam taxawaayu yoonu yoo yoonu murit euh, kon euh, téere bi noonu lañ ko euh, noonu la demee muy vie et mémoire de la fille aînée de Cheikh Khadim soxna Faat Dia Mbacke noonu lañ ko tuddee muy édition Daaru Salaam barab yi nga xam si nag ku fa ku ko bëgg mën na ko faa amee dana bokk na ci librairie bu sëñ Abdou Khadir ba Majalis bokk na ci daarul himma bi sëñ Cheikh Fallou Mbacke ak ci barab yu bare bëri yoo xam si ñu ngi weccee ay téere fii ci eh, Touba ak Dakar ak yeneen zone yëpp teewul du ñàkk képp koo xam yittewoo na ko du ñàkk xëy na après danañ joxe ay numéro téléphone yoo xam si ku ko bëgg rek dana ko mën a fàggu waaye ak yeneen téere yi xam sëñ Modou Mamoun Ndiaye taalif na ko xam naa kon dama lay bàyyi jox la kàddu gu mujj gi boo tàggatoo rek ñu jéem a xool nu ñu mën a résumé eh, li ñu doon waxtaan ci yeneen kàllaama ngir mbokk yi nga xam si dañoo nekk ci bitim réew wala ñu nekk seen kër am yeneen dégg ko ci yeneen làkk ndax eh, li muy faral di wax rek Cheikh Khadim kon jaadu na tey fépp fu mën a nekk rek da nga mën a xam ci kàllaama yi ni ñuy waxee téere lu mën a doon lépp nag di tukkee fii ci jumaay Touba ci euh, waajtaayu màggal ñu ciy ànd ak waa Muxaddamata Xidma ak Rawdu Raxin ak association des écrivains de la Mouride soxna Maguette ñu ngi lay jox kàddu gu mujj gi. waaw di santaat bu baax. Euh, daayira Xidma ay ci jumaa ji tamit waa Rawdu Raxin leen trafic ak gëstu ak leeral solos màggal gi ñu ngi ci ñoom mi tamit waaye ñu ngi sant dañu nekk kon nag ñuy santaat di leen do ñu ngi koy sant bu baax mm-hmm. Mm-hmm. Mm-hmm. livre bi rek bëri na. waaye nag ñu ngi ciy dellu di sant. macha allah di ñaan ñëpp suñu màggal ak jàmm. xeeb luñ ci def sëñ bi nangu ko te gërëm ko te moom euh, làqal ñu ko fu yàq ak. macha allah elle s'appelle euh, Soxna Maguette Sylla chercheur et agent du ministère euh, de de de de la formation professionnelle et de l'enseignement et de. Il est aussi professeur de, elle est aussi professeure de lettres en technique de, d'expression française et de communication. Elle était là pour présenter l'ouvrage euh, Sokhna Fatidia Mbacké, Vie et mémoire de la fille aînée de Cheikhoul Khadim, écrit par le, le chercheur Maud Mamoun qui est aussi éditeur et qui réside en France et un mbokk talibé très prolifique qui a produit beaucoup d'ouvrages sur la Mouridia, qui est un biographe. Et comme vous l'avez suivi, on était en de faire un peu euh, un résumé succinct de, de l'ouvrage et, et, là il a revenu sur beaucoup de points, notamment depuis la naissance et les relations avec euh, que Cheikh euh, Fatou Diambake entraîné avec les autres disciples et fils de Cheikh Ahmadou Bamba. L'ouvrage est disponible dans plusieurs libraires, notamment celle de Euh, sëñ sëñ Cheikh Fadou Mbacké Daarul Himma et sëñ Abdou Khadim Mbacké ba Madia Madialis donc c'était en prélude du Grand Magal de Touba ici au sein du studio de la euh, Grande Mosquée de Touba avec la collaboration de de la Daïra Moukhaddamatoul Khidma de l'association des écrivains de la Mouridiyya et euh, de la Daïra Rawdu Rayaahin des expositions sur les livres et les grandes figures de la Mouridiyya qu'on fait ici à l'esplanade de la Grande Mosquée de Touba suivi des panels Euh, Aujourd'hui, on a, il la, le premier panel. Maintenant, le panel suivant va être animé par Seydna Orba, qui est un chercheur qui ne se présente plus dans la média, et le docteur, docteur Segei Enda. Le thème sera Touba et le Magal, thérapie d'un Sénégal, Sénégal en crise. Donc, on vous rendez-vous dans quelques minutes.